jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saasu ne tey fii ñu ngi fii ci benn salle de musculation bu nekk ci Parcelles Assainies wala Grand Médine seet fi xale boo xamante ne vraiment géejawaay la dëkk ndaanaan la ci làmb ndax bari na coow ci làmb askanu làmb bëgg nañ ko amateur yi bëgg nañ ko muy Bou Siteu mu fas yéene laa rek Laurent Ndiago mu nekk combat boo xamante ni ki ko tëgg mooy Ndiaye production ci njiital ba di Fallou Ndiaye dañuy dugg ci biir xool préparation wàccaay bi buur nan lay fas yéene liggéey lan la fas yéene wax Laurent Laurent lan la fas yéene wax Bou Siteu waaye dañuy dugg ci biir mbokk yi dégtal leen ko xool entraînement sit Bou Siteu Adama Kaay sama waa ji Adama Sénégal moo gën a démb léegi yow di Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di béggee ñëpp ñi nga xamante ni dañuy béggee équipe bi di béggee waat équipe bi ñu doon wax naa di def quart de finale demi finale dem lañ mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon ci biti léegi Bou Siteu la ñu toogal nga xamante ni kenn du ko présenté ci làmb xale la boo xamante ni vraiment bi mu duggee ci làmb ba léegi mu ngi ciy def ja jéego yu am solo keroog làmbam ji mujj arène nationale gis ngeen li fa indi moom mooy sel mbër bu mës daal mbër ba pare kog ko loolu nag àdduna bépp di ci waxtaale tey mu jëlaat beneen xale boo xamante ni moom it phénomène la muy Laurent Ndiago vraiment benn combat la bëre ci làmb mérité na li tax bu Siteu jël ko moo tax tey ñu fekk ko fi muy entraîné ngir bëgg a waxtaan ak moom bu nuy naa la baax di la siyaar. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi di sant sama ñaari waajur di la nuyu bu baax baa jili di nuyu waa wasaare ku su mel ne Ousin suma xarit. Mm. waaw di nuyu sa caméraman bi nekk borom baax suma waay la. Mm. xam di bëggee bamba bi ma àndal fii xam ma mm. di bëggee saal bi ñëpp gaa yi mbëri parcelles yeeg yëpp. waaw di bëggee Moussa Kalamu Kourse. waaw ak maa parce que boo xoolee sama combat maak Malick Ndiaye fii laa ko préparé. Hmm. waaw préparé yu am solo. combat bi tamit noonu la demee te bii moo si raw. Hmm. bii moom gars yi ñoo bëgg combat bi sax coach. Hmm. maa seex moom moo bëgg combat si boppam a dama ko jox sam bopp. waaw moo loolu gis nga li may daj. waaw di nuy àdduna di nuy gars yëpp nag di nuyu autorité yëpp. di nuyu waa waay bu baax a baax a baax waa Seras ñoom Moussa Fall Baybas sama waa koñ gars yi ñëpp ma nuyu ñëpp. bu dama dama dama am lu ma jaaxal mooy da nga jóge ci Mali Ndiaye 37 foot jël Laurent mais Laurent bi nga ko jëlee ba léegi tey bi ma ñëwee dama gis bu ci façon entraînement yu yu wuute ci masse musculaire bi nga yokk ko combat bi moo toll noonu wala Laurent moo toll noonu. waaw maanaam adversaire bi la te parce que adversaire bi nekk na adversaire boo xam ne defagul dara si làmb mais wax ji moo bëri xam nga rek làmmañ bay rëy quoi hmm. mais deful dara si làmb. waaw moo tax genre mel noonu boo leen di préparé da leen ay waaj am doole waaw maanaam li may entraîné nekkul pour Laurent ah, quoi. waaw moom ñu ko sut maas ñooñu laay liggéeyal. mais nekkul pour moom. te parce que man leer na ma leer man li may teg sama bopp Laurent ah du ko tegoo li may yëkkati ak li may chargé di ko xëcc man gëm naa ne Laurent ah mënul lool noonu. waaw loolu lool la rek. waaw moo loolu ba pare adversaire bi maanaam moo laaj loolu. Hmm. waaw adversaire bi na adversaire boo xam ne daal nekkul ku ñuy liggéey liggéey boo waaw mooy loolu te combat bi nekk na combat boo xamante ne coow lu bëri na trop ñii naan Bou Siteu mun na mu dina ko mën wala du ko mën mais loolu noonu lépp après le 27 lay leer. loolu la 27 yaa ko ci adversaire bi moom xeex. wala bëre lan nga jàpp ne parce que moom gëm na ni bu arbitre ne prix day dox sa kaw dina la duma dina la jàpp dina daal boo waxee sax mun ne la bu paa la. <laughs> waaw noonu ñu koy waxee. nee na bu paa la bu mbër lan la yàqu daaw. waaw <laughs> nee waaw. waa jël teel micro bi. waaw ah, nee na yow lan nga. paa nga yàqu daaw nee na yàqu daal laa nee na mag laa. te moom magam rek moom mag. Ah. moom Ronald billaay wallaay rek moo lool Ronald mag la de du xale de. gis ko noonu rek xale la de nee daa yéex a dugg si làmb rek sax lekkatul xale bébé la. waaw ah, moo loolu mais loolu yëpp après le 27 lay leer yàggatul. ma war a ñëw am neneen nu ma war a ñëwee. Hmm. waaw war ko ñëw war ko teg lu métti nag. barke Serigne Touba ma baa jile. Hmm. baa jile combat bi dafa nekk combat boo xam te ne waaw maanaam combat ranking la comme nu ma la ko mën a waxee. Mhm. waaw après nag bu combat bi jàllee nag mu jeex mais si biir lamb ji ba ba lamb ja ranking la sama diggante maag booy boobu. booy bi nee na booy jàmb gën la de nee na moom xamul kii de moom tarkindaa la. waaw mooy booy jàmm gën la moom léegi la rek man ba may nekk jàmm gën di fekk di di kiiwante waa jàmm loolu dëmb la waaw moo tax nag combat bi waa jàmm gën su may nit di bëggee gaa yëpp di wax ne gaa yëpp loolu. waaw nañ noo tur ko waa ndax lii laxmu la rek apparemment loolu. Hmm. lu ma war a ñëw effacé ko mu jeex tax wax du am dara du xew. waaw maanaam combat bi képp kuy sama nit nekk jaamu gan rek dama bëgg ñëpp bëgguma sax déggante sa kenn. nañ noo tur ba combat bi jàll. te hmm. parce que boo xoolee sama diggante ma ak Malick Ndiaye. waaw Pikine dama fa am ay nit mais comme comme ni ma comme bii passé rek ni ma waxoon waa Pikine nañ nootur samay nit ñun nootur combat bi jàll gis nga bii tamit noonu lay demee. Hmm. di bëggee waa jàmm gën bu baax a baax baax. non jàmm nga mënoo leen béggee ndax Laurent fa la dëkk nga bëgg leen a béggee bàyyi li nga def. non fa la dëkk mais Laurent yow moo Laurent saison bii la kii rek saison Laurent 2021 bii nii la ñu fa dañ koo gëm de. non mooy loolu yow xam nga ne Bou Siteu bu jógee bis boobu noonu bu ma jógee waa jàmm gën képp kuy génn Bou Siteu moo moo la tax a jóg. loolu day garaaw. ak Serigne Touba Mbacké. mais nag dafa mel ni moom wax na ni moom xam na la. xam na la waa ji ne ko kii bu xale la affaire bi mu ne bu du na jabar ne bu gis nga bu am na doom bu xam naa ko ñëw naa këram. moom daal wax na lu ne ci. xamaluma dara ma dara Roland musuma ko gis biir géejawaay maanaam biir géejawaay musuma dox gis Roland bët ak bët biir géejawaay musul am. waaw man na daan naa ñëw jàmm gan mu may gis di may bégee xam nga mooy loolu. tey lan laa mu neex nii rek waaw ma la ba muy soog a kii ay moo loolu wax baaxul mais boobu dafa ma daan bégee di ma vocal nice naa ma mais tey la neex nii rek xam nga rek. ah mais nee na après da nga ko mujjee boleke xaw ma lan nga xew rek. waaw ah, après dafa dafa a ëppal am licence rek bëgg a yeb bu Siteu daf émission taxaw di ma laaj ma boole ko da nga doon bëggee boobu moo tax la. booleke daan bëggee nit di bëggee bu Siteu naan ko ma dama lay roy yàgg maa bëggee boobu amul licence amul dara boobu am licence rek bëgg ma yeb xam nga rek def émission benn jour laaj ma man ko nag booy booy bul waxateeg man teel say message noonu noonu rek ma boole ko ko fët xam rek. si la mooy jël bi mu la jël daf la bëgg a agressé dox sa kaw. jàpp la daan na parce que moom gëm na mën na bëre te ñeme woo xeex moom te gëm na ni moom li mu soxla ci làmb du yow yaa koy may. xam nga loolu noonu. xam nga loolu noonu. maanaam waaru ci booy bi de booy bi dafa doj de. wallaay booy bi deful dara booy bi déggoo yow boo booy boo xoolee combat bii mu bëre yow xam nga ne moom doo ma tëkkale ak adversaire am. waaw adversaire am yow xam nga ne yow man doo ma moom hmm. booy plateau. waaw te ma ne moo loolu yow xam nga ne yow doo ma tëkkaleeg. gëlee doon booy yi ngeen tuddee yow. barki Serigne Touba ah, ronal laa lay wax de bisu la 27 man naa ko jàpp rek. naa ko yor ba ni ko ñir mi jàpp boobu dinaa ko dóor ba mu tëddal boppam ni ma def bu ndaw dinaa ko ko def. Hmm. ni ma def bu ndaw barki arxuraan kam naa ko def ronal dinaa ko dóor ba mu tëddal boppam. mais comme booy dama leen dàq xeex. kon moom du ñëwaat bi yoon. non bii moom ñooy loolu yooyu moom dama ko bëgg sax bàyyi yooyu. dama imagine waa nga daan ni di xàcc ay coups xam nga yaa nga den saa nga daan ni moo la. yooyu dama sama yëngu mbalag la rek. <laughs> may ah. daan ni ndax man dama ko yaa ko fooyee école ba. Mhm. damay daan ni sax daw la suuf. Mhm. xam nga mu nekk loo xam ne maanaam dafa nekk ci man. mais yooyu noonu yëpp bàyyi ko Mm. après que lamb après lamb da ngay xalaat après lamb quoi. Mm. te ba boo xoolee Mame Malick Ndiaye yenn saa dañuy daje nii sax ma am kersa waa mm. ndax fekkoon na ma ko daan kese bàyyi ko noonu ah mais eh, eh, ma dajeeg nit. <laughs> mu leeral kii xam nga ma ko daan ba pare quoi ma noonu mooy loolu. Oh, di ko jégalu bu baax nag si loolu. Ah, mhm. mais loolu amul solo mais dama gis beneen bu maturité mature. Mhm. buubu am benn mentalité boo xamante ne combat bi. lan la jaral géejawaay ak lan la la jaral parce que dégg naa combat bi avant muy taxaw de buuse dugal na ci loxoom Fallou Ndiaye promoteur bi wax na woo na ku ne pour mhm. nga jël avance bi mais combat bi dafa mel ni chaque jour a ngi gis bu mu ngi des fois ma daw ci tali bi dajeeg yow nga jugee saal keroog fekk naa la ci benn bërëb man daal gis naa bu mu mel ni combat bi daf ko bëgg combat bi fan la la mën a yóbbu waaw combat bi moom fi mu mën a yóbbu moom muy bëri na waaw te loolu noonu après le 27 te parce que combat bi nekk na combat boo xam te ne daal mhm. waaw combat bi daal dafa nekk combat boo xam te ne yoon la mais du bi nag Mm. mais da ngay xool Bou Siteu li mu def si làmb ak li mu marqué empreinte am. Mm. parce que ku bëre neuf combats am sept victoire doo ko tëkkaleeg borom benn combat. ba pare combat bi géejawaay combat bi dafa nekk combat boo xam te ne combat bu leen ñor la. Mm. waaw combat bu leen ñor la. bëgg nañ combat bëgg nañ combat ku mel ni ay PAM moom a faal. ñoo ñëw fu ñu demee ba may woo di dugal seen loxo ci combat bi xam ay amer ay dara gaa yëpp. combat bi maanaam dafa am fu mu toll dafa am fu muy laaj. waaw Boucher Boucher parce que combat bi taxaw su taxawee sax à cause moom la. Mm. waaw di ko sant bu baax a baax a baax Boucher. Mm. tey jii combat bi Fallou Ndiaye na ko ba ma bëre Malick Ndiaye ba presque topp na ma un mois dama wax si combat ma ne ko du ma ko jël mais xam rek. waaw ku si tamit nekk koo xam te ne xam nga. Mm. suma mag la suma lépp la. xam nga rek waaw moo loolu. ñu waxtaan ba am ni ñu waxtaanee jël combat bi. waaw moo loolu mais du xaalis du Mm. waaw du xaalis moo tax ma jéem ko dégg naa fayeku nga ci loolu mosul fayeku ci làmb. waaw dëgg la dama la ko imagine toi comme lu ma nga laax rek sama dixième combat dafa jot ma fayeku te i que yow imagine toi mbër yi nii di fayeku ay millions yi nii li may mobiliser duñ ko mobiliser. Mm. waaw kon dafa jot ma egg si benn niveau egg si benn kase bi nii dafa jot mais imagine toi ku bëre dix combat yoon la ma dugg di commencé fayeku ay millions. Mm. waaw te man mooy sama métier. waaw ndax parce que dama pare pour teral sama yaay teral sama papa. Hmm. waaw nekk ma fii nag di bëre di di kii làmb man mooy sama métier. waaw man lii sama métier laa ko de man aw ma benn métier. Hmm. waaw kon tey dafa jot ma commencé fay ko ay millions. te hmm. dafa jot. te parce que bu baaxoo. Bou Siteu bu mobilisé. maa la ko wax. ah bis làmb spectacle Bou rek mais loolu xam nga jàkkaarloo yow. ku dàq bëre ku dàq xeex ku ëpp doole ku ëpp mystique ku dàq xeex. ku gën a fonk bis bi mu ngi jàkkaarloo yow tontu ko. waaw bu dee bu dee loolu moom bu dee ku dàq bu dee musique moom. Hmm. si côté boobu mun naa jël baaka moom. Hmm. mu foo ba bisu làmb ma yàq lépp. Hmm. si jouru làmb ji nag laa lay wax. na def lu ko neex bisu làmb ma toj lépp ñu nekk cinquante cinquante ñu bëree. combat bi maanaam du du musique. doole du musique combat bi liggéey moo koy daan. doole ku ëpp doole. ku ëpp doole bu dee doole rek man maa ko ëpp doole. ku dàq bëre bu dee dàq bëre. ku bëre neuf combats am sept victoire sept samay sept victoire yëpp jël bu ci nekk bokkul ak moromam. jël bu ci nekk bokkul ak moromam ba pare te ba ma man bëreegu ma. ku dàq xeex. waaw ah, ku dàq xeex maa dàq xeex. maa ko gën a nekk wara maa ko gën a nekk bandi. dóor mu daanu mën nañ ko séntu ci combat bi. dóor mu daanu man si man moom laay liggéey sax. combat bi gëm naa ne dóor mu daanu sax lay doon. dóor mu tëdd. barke seen booy bu dëggalee boppam ma dóor ko mu daanu. Rona bu arbitre nee pipe nga teg sa tànk droite bi nga bi nga wóolu noonu ma teg sama tànk gauche dañuy jàkkaarloo nii la. loolu day neex. waaw imagine toi li ma lax rek. droite lay teg gauche laay teg. te Bou Siteu xam-xam ne day ñëw. waaw Bou Siteu moom képp ku ko xam-xam ne arbitre bu ne bu wàccee loxo rek maa ngi sa kaw. kon yow surfe arbitre moo tee nga agressé sa bopp. arbitre moo tee man ñëw si kawam. te moom du ñëw mais imagine toi koo xam ne combat am yëpp day ñëw sama diggante maa Roi Roi amul fitu sax arbitre ne pipe foofu noonu tànkam taxaw xaar ma mu nekk arbitre du ne Pire sax ma nekk foofu di benn benn lan toog moom di léetoo mel ni kuy léetoo ku ku ku ku prouvé si làmb hmm. boobu arbitre bu nee Pire maa ci kawam tàq naa ci kawam jam ko ay góos hmm. mu taxaw ma fekkow naa ko ko timbax ba mu daw dóor koy góos droit bi alxuraan kam ba mu daw génn làmb mais Laurent am na garde de bu fii nag di wax loo xamante ni nii comme arbitre di Pire ma nekk foofu naan dama koy jàpp rek daan ko non hmm. boobi day ñam boobi day xeex combat bi chaque jour ma wax ko combat bi ardoor si am wàll mais est-ce que du danga ko bëgg a wax loolu pour booy bi indi xeex nga nga daw sàcc ko. bëri mais yow booy booy wax da wax ku man xeex man Ronald dafa man a xeex ba man ma jaaxal ca xeex man mi rek man li may xeex rek man dama mën a xeex. Hmm. waaw waxuma la nag loo xam ne comme ay xeexu làmb non non man wagalaa. jàkkaarloo moom corps à corps. parce que Serigne Touba ma dóoral ma dóor dóoral ma dóor. jaabante ardo. billahi wallahi taala <laughs> ardo da si am wàll combat bi dafa nekk boo xam ne rek xam rek. Hmm. combat millier la. kon nag moom millier la woote si lamb ji. millier mooy lan. waaw millier moom maanaam. te millier millier xale lañ wax. millier millier boo koy dund ay fekk am xaalis. non mooy man xamul luy millier sax millier booy lan. maa ngi koy dégg muy def ay sorte di wax ay yónnee leen ma xaalis. booy moo lay wax ne parewul gërëm yi sax bokkul ñi muy gërëm ak ñi may gërëm bokkuñu. moom ñan lay gërëm. ay ay ay ñoo xam te ne nii loolu. ay vingt lañ koy may ay dix yow ngay gërëm ñaan man gërëm ñoo xam ne ay Daouda international <laughs> ay Cheikhou Kouyaté <laughs> eh. waaw di ko bu baax a baax a baax xam nga Cheikhou Kouyaté ah Cheikhou Kouyaté Cheikhou Kouyaté moom di nuyu jabaram bu baax Zara ndeysaan waaw Zara suma xarit di bëggee doom bébé Fatima seen doom ji ndeysaan waaw ñoom Daouda Mbow lépp Daouda Mbow la jaar yow Cheikhou Kouyaté nag xajul ci xajul ci ku ci mel ay Alaaji Naar oh. waaw ku ci mel ni mala sam waay ñoo xam te nii ndeysaan ay borom daraja lañ ay pamuma faal Lara am na problème kooku am na nga di dofu problème laa la wax mystique mystique lépp ñi lay ñaanal léegi paa yi fu dëkk ay marfa fa ku ci mel ni waa Joal Fadiouth eh, bàyyi li ngay def da ngay def bu baax waaw ah, ay Moussa Balde waa Casamance. loolu am na problème di bëggee waa Diof bu baax ku ci mel ne Abdou Ndama Thiam mi Pape Diouf di waay. Abdou Ndama Thiam kooku suma papa la di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. booy bi am na problème ñuy ñoom Pa Senghor Pa yëpp. waaw ah, ay ñoom Joni Joni sëñ Joni Joni. sëñ Ablaye Joni Joni. Joni Joni de moom xanaa day ah. yeew léegi léegi. moo kooku déglu ma la Joni Joni bañ na ko ba dama ne la <laughs> Joni Joni. Joni Joni. waaw kay sëñ Ablaye di ko bëggee bu baax. nga wax ne nag combat bi waaw maa ngi gis affaire yi mu ngi leer. Hmm. waaw maa ngi gis affaire yi jàmm yaram bi yaa ngi sant lépp jàmm lépp nice. déggoo ma de. le 27 yàggatul. le 27 yàggatul. barke Serigne dama war a ñëw war a confirmer. Hmm. war a ñëw wane sama bëre. waaw maanaam li li li nga xam da doon nelaw ci man laa bëgg a yee le 27. ndeysaan ata du booy boobu moo may téye dara nag. kontaan mu koy faxas jàll dem sama yoon. kontaan naa ci yow maa lay jaajëfal bu baax. ñëw ci saal gis la ngay liggéey lu metti macha allah mais maa lay jaajëfal yow. waaw di kontaan yow bu baax baa yi nag. di mm-hmm. bëggee sama doomu ndey bi ma àndal nag Bamba. Mm-hmm. moom day jàpp si affaire ak ñoom Baye baay ndeysaan boo yoo xam ne damay tëdd ba guddi rek ñu fëgg ma gaa ak ay hamburger. ndeysaan ku si mel ne Baye Baye ak Bamba sama doom yaay ñoom Jogo xam nga ñoom. gaa yi xam nga boo limee da ngay juum ku si mel ne ñoom cek ñoom hmm. Cheikh Jalle Thioye ñoom Bibi gaay maa ngi woo ci combat bu baax a baax. Hmm. ay ñoom Jogo ñoom Bébé bu Malika ñoom Omar bu Ndaw xam nga ñoom Ibi hmm. waa kon jaxaay bi gaay maa ngi woo ci combat ay ñoom Tafa Yaa. Tafa Yaa président gi maa ngi koy woo ci combat bu baax. xam nga di ci woo Bayde ba maire Gunaas bi. xam nga di ci woo tamit Omar Sané maa ngi koy woo ci combat bi. waaw Omar Sané maa ngi koy woo di tamit. Mm. waaw ñuy gis affaire yi mu ngi leer. Mm. waaw di woo gaa yëpp di woo tamit xam nga ku mel ni maa seexu tamit suma doom yaay saal bi. Mm. xam nga di ko bégee bu baax a baax a baax a baax. waaw di bégee maanaam àdduna di woo combat bi nag di si woo gaa yëpp. xam nga di si woo ñoo xam te ni ndeysaan su may fans lañ. émission nii sax ndeysaan damay yenn saa damay fàtte sax di leen gërëm. ku ci mel ni Mbay Toldo hmm. ak Tony Tony maa ngi koy sant bu baax ñoom ñu ba si diaspora bi hmm. waaw Tony moom fayal ma bolok Fallou Ndiaye xam nga Tony maa kooku doomu géejawaay njaago la mais nee na hmm. combat bi day sot tere du géejawaay bi kon Tony maa ngi lay baax a baax di béggee waa diaspora di si woo ñëpp nag su ma mag góoraa maa woo di si woo jabaram nenne ñu ba Espagne maa ngi woo ci combat di si woo tamit Omar Bass suma papa